Fall daal di koy tontu moom boobu lépp commissaire am ci ay mbir yu bëree bëri yoo xam ne daal dina koy fàttali te ba noppi itam ànd ci ak fulla gu bëree bëri moom docteur Boulos d'abord mu ne ko dafa am article sept boo xam ne dafa jëm ci wàllum déontologie médicale ba noppi tegal ko la nga xam ni moom moo di code ba sital ko ko benn par benn ne ko tout médecin ay astreint au secret professionnel il peut en être délié dans les cas prévus par la loi fàttali ko nag lépp li nga xam ne mooy mën a tax moom moomee di docteur Boulos mën ab dossier médical ñi nga xam ne ñoo nekkee ci justice bu fekkente ni daa am ab juge boo xam ni moo ko daal di laaj ci benn ab cas bu spécial boo xam ne mënut a ñàkk docteur Boulos indi ab tontoom nekk nag li nga xam ne moo jëm ci wàllu mbiri Ousmane Sonko amul lenn lu ma la ci mën a jox comme tontu amul lenn itam lu ma la jox comme copie par rapport ak certificat médicalam am loolee di wane tey dëggal encore une fois que ni ñoom ñi nekkee ci justice waa kër président Macky Sall bàyyeeguñu benn yoon ñi ngi topp benn par benn ñi nga xam ne ñëpp ñoo nekkoon ci mbiri Ousmane Sonko ngir daal di jël ay information ci ñoom ngir xam ndax dëgg lam déet Ousmane Sonko daa am ñu doon jéem a jël ab bakkenam lu ci mënti am docteur Boulos moom daal dinay nay indi ab tontoom dem rek Ousmane Sonko ba muy def ab déclaration am daal di nay génnee dossier médical am téye ko wan ka képp koo xam ni yaa ngi ko doon suivre ne lii ngeen di wër mi ngi nii ci man ci cité kër góor gi jarul ngeen di dem ca suma assistance di leen daal di sonal wala ngeen di topp ci ginnaaw kenn ñëw leen sama kër ngeen daal di koy jël si fii la réew mi toll Ousmane Sonko ak justice bu Sénégal xëccoo bu métti métti dox seen diggante jamono ji ñu toll nii mu nekk nag ab mbir moo xam ni kenn xamul fu muy mujjee waaye lu ci mënti am mooy Ousmane Sonko am na fu dëgër fu mu téye ne leen nag dafa am ay résultats yoo xam ni moom la ñuy daal di xaar yóbbu nañ ko bitim réew duñu wax nag fan résultat yi dina ñëw dinañ xam ndax da ngeen bëggoon jël suñu bakken ou te nag dinañ ko jébbal képp koo xam ni da nga di acteur ci wàllum politique fii ci Sénégal ak ci bitim réew ngir ngeen xam exactement ce qui s'est passé par rapport ak Ousmane Sonko lañ ko doon jéem a def ca la 16 mars lu ci mënti am lépp dina daal di leer fii la réew mi toll fan la wànnent di mujjee ak gëtëm Ousmane Sonko mi ngi biir këram toog ëllëg war a nekk procès bi war a dox ci digganteem ak Mame Mbaye Niang yëpp di laaj ndax dina dem wala du dem am na nag ab publication boo xam ne waa Dakar Actu dal di woon nañ koy def di xam ne ne Ousmane Sonko par rapport ak certificat médical bi mu dal di yor bi koy may fukki fan ni daal di noppalu moom moomee daf ci daal di jël ab décision que ni day toog ab këram kenn xamagul ëllëg la lépp di leer équipe bu AGT News dinañ leen ko toppal laata loolu abonné leen ci suñu chaîne ngir dara bañ leen cee raw AGT News